non mouvement ñoo lànk ñoom li man ci li ñu nekk ci laa ànd gis nga Guy Marius Sagna nekk si biir kaso gi nii tey jii Sénégal ñëpp waroon a ñëw jàppale ko si xeex bi mu nekk nii parce que lu tax moom xeexalul boppam moom askan bi lay xeexal kon nit ñi dañu war a jóg ñoom itam ñëw ñëw ñëw ñëw dimbale ko ci affaire bi jàppale ko parce que li mu nekk ci ci droit am la nekk ndax mënuñu euh, bëgg a jël lu nekk fii ci réew mi ñu ne dañ koy yokku te teguñu ko ci dëgg teguñu ko ci yoon loolu mënul nekk ñoom bu ñu amee problème mu xaalis nañ ko lijjanti feneen mais bu ñu ko sëf askan wi du dëgg waaw ñoom ñoo xam nu ñuy def ba campagne baa ngi nii passé dañ doon dépensé ay millions yu jeex bu ñu demee ba léegi yortuñ dara nag ñu bëgg a jël yokk facture yu kenn xamul ñu bëgg ko yokk di ko sëf askan wi loolu loolu marul dëgg du yoon nañ xoolaat lu ñuy def moomuñu nit ñi dañ leen fi teg pour ñu liggéeyal askan wi yaa ngi dégg waaw man loolu laa amul lu ma ciy wax quoi wasalaam waaw ok merci beaucoup